yëpp yëpp lii mooy Médine. penalty waa Sëlëm Fass ñu am penalty noonu laay lay la laa numéro 13 bi la ñu gaañ kon attaque la ñu dugg ci biir surface bi waa ji pantaka bu daanu penalty pour laay si Sëlëm Fass. voilà penalty pour HLM Fass penalty pour HLM Fass penalty pour HLM Fass penalty pour HLM Fass penalty pour HLM Fass Ablaye Aliou Sibé na door na dugal na ko El Hadj Ibrahima Ba qui réduit le score deux buts à un deux buts à un amul coow jarul coow jarul coow deux buts à un Abou Soumaré mooy li ñu waxoon mooy li ñu waxoon xeer yi daam xeer yi xeer yi daam xeer yi xeer yi daam xeer yi daam xeer yi oh. Yep, yep.